Ndella Madior Diouf bu Safir FM Ndella Madior Diouf moom mi nga xamante ni nag Sénégal ñoom ñoo ko bëggal seen bopp moom mi nga xamante ni sax mooy yaayu Sara Nero mi nga xam ne moom la daal di séq ak kii di Sada Kane journaliste moom Ndella Madior Diouf mi nga xamante ni sax amoon na fi jëkkëru belge moom Ndella Madior Diouf mi nga xamante ni dafa ñeme lool réseau sociaux yi tey jii moom moo ñu daal di soxal moom Ndella Madior Diouf ginnaaw émission bi nga xam ne daal na koy tourné fële ca 2STV bi ñu diffusé ko vendredi bi di confrontation ak Bijou Ngoné la mu fa wax nag ci déclaration ñeel wàllum góor ak sexe nag moo ëllëm nag internet yëpp waaw nit ñëpp ku ci nekk na dal na ci kawam ndax la mu wax moom Ndella Madior Diouf mooy ne rek. su marié mën na naka saay su ne bés bu jot mën na daal di séq ki nga xam ne mooy borom këram loolee nag dafay firndeel ne moom mi góor ñee ko soxal waaye tam wàllum sexe itam lu koy téel la waaye lépp lu jëm ci wàllum jigéen ak wàllum lesbienne nag moom moomee loole lijjantiwu ko te itam amu ci soxla moom daal ci gàttal ci ni mu ko waxee nee na góor ñi la bëgg tey góor ñi la bëgg ëllëg te itam góor bu ko mën dëgg sax moom la koy séqal ba tax na nag soo ko mënee lool comme ni mu ko bëggee bés bu jot mën na la koo jox moom Ndella Madior Diouf moo xam ne lu mel ci émission confrontation ak Bijou Ngoné moom Ndella Madior Diouf nag ginnaaw déclaration boobu na da xamante ni daan na koy def ci 2STV yi ñu reprendre ko ci yenn site internet ak chaîne YouTube yi ku ci nekk nag jàpp ko di ko xas xas ki nag jóge ko sax ci doomam ji nga xamante ni moom moo ko sukk jur di Sara Nero nekk taawam bi nga xam ne daal dina koy am ak kii di Sada Kane doom jooju nag moom moo daal di posté ci benn vidéo bu benn site internet daal di publier extrait boobu la émission loolee nag moom Sara Nero daal di ne nag daal di ko maman tu aurais dû penser à moi maanaam yaay waroon nga maa xalaat laata ngay wax lii lépp waaye yal na la yàlla yokk sutura. waaye itam du tee bëgg naa la lool sama yaay loolee la Sara Néro daal di xamle nit yi ñëpp nag ku ci nekk dal nag ci ginnaaw ki nga xam ne moom mooy Ndella Madior Diouf xamle ni sax ni li mu wax ni tegu ko fenn te itam bokkut ak euh, suñu culture moom mi di Sara Néro nag am lu ko metti lool waaye Ndella Madior Diouf moom mi daal di nag génnaat ci bu gaawtu na defaat ay vidéo posté ko xam ne ni rek ne mu wax dara amu ci ndax dañ ko laaj ba xam moom mi wàllum lesbianisme ba xam nekku ci waaw am déet ca leen tontu daal di xam ne ni rek moom mi loolee intéressé wu ko góor ñi daal la bëgg loole nag am na ci bu marié sax mën na saay su nekk muy def li di rapport sexuel loolu nag la mu ci wund moom Ndella Madior Diouf xamle na ni rek nit yi ñoom ñoo ko interprété ci anam goo xamante ni moom waxew ko noonu ndax émission la laaj ak tontu la la ko Bijou Ngoné laaj moom mii loolu la ko daal di tontu moom Ndella Madior Diouf na daal di xam ne ni Sénégal ci boppam ñoo bëgg ay coow waaye itam bëgg ay wax yu sew ak bëgg interprété ak bëgg interprétation boo xamante ni ñoom ñoo ñii nag ñoom ñoo koy interpréter nu mu leen neexee waaye nag ci kaw gàttal moom Ndella Madior Diouf nag askan wi yëpp dañoo mànkoo xam ne ni rek ne dañ ko war a yóbbu dara xel ndax bopp bi ci boppam moo nekkut ak moom waaye nag la gën a doy waarati ci mbir moomee nekkut la mu wax ak loolu wante ak kii di Mame Makhtar Gueye bu ONG Jamra mi nga xam ne dafa ànd ak kii di Ndella Madior ginnaaw déclaration bi nga xamante ni nag àndut ak leen suñu wàllum culture moom mi nga xam ne moom mooy Mame Makhtar Gueye nag dafa daal di ànd ak kii di Ndella Madior Diouf daal di xam ne ni rek moom ànd moom bu baax a baax ndax lu jëm ci wàllum jigéen ak jigéen bu nekk bu muy wàllum lesbianisme nag comme que moom mi di la Madior Diouf nag àndut ak loolu moom mi juboo nag moom waaye la mu wax nag ci wàllum nag bëgg góor gi mu bëgg góor moom Mame Makhtar Gueye xam na ni rek ne. Ndella Madior Diop dafa leeral bu baax ni loolee nag ci bu marié la koy def kon nag amul dara loo xamante ni mën nañ ko ko reprocher moom mi di Ndella Madior Diop loolee di ay kàddu Mame Makhtar Gueye bu ONG waaye nag nit yi itam xamal kii di Mame Makhtar Gueye bu ONG Jamra moom moo di ne saay su ne rek moom lu ñor mu wax lu ñorul mu wax rawati nag ci wàllum nag sëy néegu sëy la fa war a xew ak ni ko Ndella Madior Diop waxee ñëpp dañ ko doon xaaree ngir mu daal di koy xarab ndax ci plateau de télévision gi mu toog daal di xam ne lu nu mel ci wàllum vie privée te loolee nag gisoon nañ fi yoo xam ne gën naa yemamaay eh, te doon am ci maîtresse d'un homme marié waaye moom mi di Mama Tàgge dafa doon toog kaas ko ne loolee ñu ko fenn te itam dañoo war a censurer boobu leen mbir waaye nag moom Mama Tàgge la mu leen tontu mooy ne rek ne moom daal ànd naa ki nga xam te moom mooy Ndella Madior Diouf ci kaw mu daal di bannir lépp lu jëm ci wàllum lesbianisme.